monsieur le kàddu gi kàddu yi dalal dalal xale yi di ñaax pour ñun ñu roy ci nit ñu baax ñi ci réew mi Mbàkke nag am nañ ay royukaay doy sëkk xaadimul xadim royukaay royukaay waxuma Mbàkke waaye àdduna son ma Mor Diarra Bousso royukaay la ñoom ñëpp nag dañoo war a roy si ñoom par rapport ak valeur yi làmboo woon mooy jikko yu rafet ak taxawaayu rafet gëm seen dëkk gëm seen réew ba mu dana lu ne loolu nag la jeunesse morale buñ tànnee ku mel ni Iba Gueye def ko parrain tey dafa war a li muy war mooy ngeen roy ci moom ci bëgg dëkkam ci amal njariñ askanam parce que Iba Gueye il a tout donné à Mbacké mais Mbacké ñi ko jàppale woon ànd ak moom tey mooy suñ papa yi toog tey ba ñuy laxasaayu ànd ak moom gëm ko mbaam gëm vision pour Mbàkke gëm vision politique am boobu ñoom seen ay at lañu amoon ay ndaw la ñoon comme ñun engagé wu jàppale ko ba tey dam def Mbàkke yëpp yàlla jàppale woon ko mën di ko def il ministre il a il a été directeur général de la caisse de sécurité sociale, il a été DG, DG d'une courte, il a été président du conseil régional de Durbel, il a été maire de Mbaké, autant de titres qui montrent à suffisance l'engagement qu'il avait pour le département de Mbaké, mais également l'engagement qu'il avait pour servir son pays. kon nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla def ba ñun suñu yéene yëpp ak li koy ñaanal ci lu baax. mu mu mu fekk ko fa mu nekk na ko yàlla teere fi daw si mu seen teg wasilaam seen seen Tuubaa Xaadimu Rasuul seen teg faak également seen Abdou Lahad Mbacké kon ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di remercier encore une fois toute l'assistance et vous dire combien on est heureux d'avoir pu manifester notre participation à cette manifestation qui traduit éloquemment tous les bienfaits et toutes les vertus qu'une jeunesse doit avoir pour mener à bien les nobles ambitions qu'elle a pour son pays et pour sa ville. Je vous remercie. Monsieur les participants, je m'avais adressé cette fois-ci le deuxième propos à votre endroit parce que vous êtes là en face de celui qui sont en train de faire le présent du département et on compte sur vous pour mener le futur du département. Et chacun, chacune de ces autorités citées suffit pour donner un exemple, suffit pour être galvanisateur et de prendre un exemple pour la réussite future de vos projets. Le contexte que nous sommes en train de mener cette activité aujourd'hui n'est pas du tout un contexte agréable, sachant la drame qui s'est tenue hier nuit à Tuawan et Nous compatissons à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi et surtout aux familles éplorées et endeuillées. Mais nous le faisons de façon très sobre, comme partout ailleurs au Sénégal, comme ça se déroule. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de festivité, mais l'essentiel sera dit. Monsieur, les bonnes volontés qui ont bien voulu participer pour la réussite de cet événement, encore une fois, je vous dis que mon propos va s'articuler tout simplement autour d'un mot simple qui est merci. Maintenant, résumé mon discours en donnant un exemple. Toutes ces autorités précitées, pour nos camarades qui sont là, pour ceux qui nous sont venus en retard, nous vous la main aussi parce que nous sommes en process et que ce que nous sommes en train de faire n'est pas encore bouclé. Nous tendons la main à tout un chacun a bien voulu vouloir contribuer pour que les activités se de la façon la plus réussie possible. li ngay wax ci moom yëpp mën nañu ko firndeel ndax man bi ñu décrété l'amicale des étudiants sociaux de Mbacké man nekkoon naa ci vice président Sam Diouf demee maa nekkoon président mais ni ko waxee rek mosul ko sollicité mun nañu non dañu ko daan fekk man jàng naa lu bëri bu ma fekk dama jàppale bu ma jaaree nii ah dans les années 82 83 donc loolu lu wóor la ku baax la mën a dimbale ay doomu adama la ku doon sonn ci la coono boobu mu mu nekk coono bi adama yi tamit daa na ko fay ci jabootam donc les jeunes ñu ngi leen di ñaanal manifestation yi réussir te ngeen xool ci référence bi ngeen jox tey ngeen xool ne avenir u Mbàkke waxuma Sénégal mais Mbàkke laa wax na avenir nag niru Mbàkke ëllëg seen loxo la nekk ndax ñun léegi suñu waa jeex kon ngeen jàng jàng ñun ay lijaasa te lépp ngeen teg ko ci te fonk seen diine parce que jamonoy léegi ji boo fonk seen diine rek ñu këf la wasalaam. préfet du préfet monsieur le maire de la ville de Mbacké monsieur le président du conseil départemental de la monsieur le président du conseil départemental de la jeunesse. messieurs les présidents des conseils communaux de la jeunesse, chers membres représentant la famille du parrain Foiba, Madame, Messieurs les chefs de service, chers invités en vos rangs, titres éclats. Je voudrais à de mon propos m'incliner devant des mémoires des bébés à l'hôpital de Tivaouane, qu'Allah ait pitié de leur âme. Permettez-moi d'abord de saluer et de souhaiter la bienvenue à nos autres venus de toutes les communes du département pour participer à cette fête de la jeunesse. C'est un immense honneur d'être choisi comme marraine de cet événement pour lancer la Semaine nationale de la jeunesse du département de Mbacké. À l'échelle où nous nous trouvons comme entrepreneurs social et actrices de développement, nous avons eu l'honneur, tout au long de notre parcours communautaire, d'être choisis comme marraine de diverses activités initiatives. Mais ce choix porté sur ma modeste personne revêt un cachet spécial et symbolique. D'abord parce que je suis engagée pour les causes communautaires, mais le devenir de la jeunesse de ma ville, de mon département, occupe une place privilégiée dans mes plaidoiries de tous les jours. Président du Conseil régional, député, directeur général au COUD et aux caisses de sécurité sociale CSS, partout il a pris en compte les populations de Mbaké. À vous mes amis jeunes, le Lex de Ibaké, c'est le goût de l'effort. Son amour pour Mbaké, je vous prie de vous en inspirer À toi, papa, là où tu es, voilà la jeunesse de Mbacké reconnaissante, qui te rend hommage et te cite en exemple. Dors en, en paix, frère Barthélémy Cheikh Abdoulaye Khat. Merci de votre aimable attention. Cette assemblée pour ouverture semaine mu nekk moment ba nga xamee ne bu am solo la moment ba nga xamee ne bu yëpp dañ ciy gis ay mbir ya nga xamee ne que lu lu yéeme la. ndaxte tey gis nañ fi monsieur le maire également ñeneen ñi nga xamee ne si yeneen langue politique yi mais ñoom ñëpp ñëw nañ pour daje autour de la jeunesse euh, bu bu Mbacké et pour dire que ñoom ñëpp dañu dajaloo juste rek autour de l' essentiel li nga xam ne que moom mooy ñor Mbacké ñi nga xam ne que moom mooy kii Mbacké et pour loolu vraiment dama leen di sant bu baax di leen encouragé par rapport ak li nga xam ne que moom la ñu beneen mbir bi mooy euh, beneen symbole bi Euh, peut-être moom laay waxee euh, mooy li nga xam ne mooy parrain bi ak famille bi li jox ko ki nga xam ne moom si gën a ndaw du moom moo si xam du moom moo si wax du moom moo gën xam ki nga ñu jox kàddu gi ñoom dafa dañu jox cër ndaw et loolu ndaw yi dañ si war a saisir pour mën a li nga xam ne mooy défi boobu mooy cër bi nga xamee ne moom lañ leen cërale ngeen mën a relever le défi beneen mooy euh, li nga xamee ne moom la euh, maanaam am Mbacke wax c'est lépp lu nit di def am koy def ak mu baax et dañuy wax waaye su nekkee ne dañuy wax sax diine cest à nga xamee ne moom mooy pilier bi mooy la sincérité c'est-à-dire sincérité sincère envers soi-même c'est-à-dire li nga xam buñ nax sa bopp sincère envers ñeneen yi autrui c'est-à-dire keneen ki nga xamee sa dëkkandoo la wala sa kii la nga sincère envers moom lépp looy defax moom mu nekk lu dëkk mu nekk lu baax mais sincérité envers sa borom suñu borom kenn mënu ko nax mais mooy le pilier de la donc sincérité boobu moo war nekk le pilier ba lépp la nga xam ne ko moom la def lépp looy liggéey liggéey ko mu baax jox ko ak xam def si li nga si mën yëpp léegi nag li si des mooy li si ñëw après borom bi moom moo ko xam moom moo koy boo jëlee place rek da am problème donc li nga xam ne mooy nekk si kanam moom moo joxe mais li nga war a def def ko mu baax en tout cas euh, damay remercier bu baax. l' eh, inspecteur eh, eh, ah, de la jeunesse nga xam ne que moom mooy coordonné liggéey bi moi je si si si kii je le fatigue tout le temps mais quand même et également ñi nga xamee ne que ñoom ñoo nekk si staff bi c'est-à-dire mooy CCJ mooy CDJ ah l'ensemble des gens qui ont participé à à l'organisation de cette cérémonie vraiment je vous félicite Eh, damay damay wax rek peut-être la famille ne connaissait pas bi waxee le nom de Iba Gueye c'est à l'unanimité c'est-à-dire ñi fa nekk ñëpp ñoom ñoo wax ne que non ce sera le parrain de la semaine loolu c'est un exemple ba nga xam amul sax lu commentaire ba nga xam ne moom la ci war en tout cas moi je je je MC di wax à la MC il c'est pas une compétition. on est là comme frère. c'est vrai que am na ay jongante ainsi de suite mais on le fait dans l'amitié dans la fraternité dans le fair play et loolu daf ñu war a guider dans la vie de tous les jours en tout cas euh, maa ngi remercier ñëpp di sant bu baax la famille du parrain di sant bu baax aussi euh, les jeunes parrains yi nga xam ne que euh, di sant bu baax ñi nga xam ne que ñoom ñoo permettre. cette euh, euh, bi semaine bi mu déroule dans de bonnes conditions en tout cas waaw si thème bi thème bi je suis toujours dans le thème ah parce que thème bi bu ñuy wax cest à c'est par rapport au sport euh, c'est par rapport à l'olympisme te loolu kuy wax olympisme c'est l'endurance c'est la persévérance c'est la fraternité et c'est ça loolu nañu soxla ci ci ci kii bi du Euh, dañuy compétir nii on est adversaire non on n'est pas des ennemis c'est juste euh, les conditions moom moo koy kii on dafa war a joxe le maximum de lui pour atteindre notre on demeure des et cet esprit-là comme exemple bi ma joxe sànq cest à frère il n'est jamais lourd keneen ki du peser jàpp jamais si xaw ma nan laa koy exprimer bu baax c'est-à-dire du nekk un poids du nekk da nga xam ne daf lay sonal un frère il est toujours le bienvenu un frère il est toujours à côté de l'autre et loolu mooy olympisme et loolu aussi mooy le sport en tout cas je vous remercie tous je déclare ouvert la semaine départementale de la jeunesse et de la paix merci beaucoup